non non journaux yooyu mu créé man la ñu xëyee man la ñu njëkk a xëyee à une Souleymane Jules Diop essaye d'acheter les statuts du PDS bis bu ñu ne ñu saaga sama yaay bis bu na ñu saaga sama papa génne ma dëkk bi lancer un mandat d'arrêt international contre moi te defuma dara may mun a man masuma masuma ma au fait j'étais may mun a imagine le jeune monsieur que j'étais ñu séparé ma ak sama famille mënumaa gis sama doom bi ma koy quitté il avait deux ans mënumaa gis sama famille ñu ne ma doo dugg ci dëkk bi te ma dara ñu lancé mandat d'arrêt international contre man te def ma nit defu ma dara détourné wu ma defuma dara chemise bi ma sol ak tubéy bi ma sol ak ñaari yére laa génne dëkk bi ak ak xànjar boo xam ni maa ngi ko téye ba léegi denc ko defuma dara léegi nga yaakaar ne man ku ma def loolu dinaa la bàyyi nga nelaw léegi ñoom journaux yu ma doon saaga bis mu ne dañ doon dañ doon topp sama samay parent di leen filmer sama yaay dañ ko doon menacer de mort mu changer téléphone ñu fexe ba mu xam téléphone bi ba fexe ba xam téléphone bi di ko woo di ko menacer ba sama yaay def cancer de l'estomac ñu fekk ci ay tumeur tellement il l'avait fatigué il lui avait pourri la vie léegi nit ñi waxuñu loolu de ñooñu doon ma attaqué wax yooyu attaques yi saaga yi filmer sama papa ñëw di ko saaga ci seen journaux yi masumaa tontu man masumaa tontu masumaa tontu ci loolu et pourtant bi ñu gañee dama woo président Wade ñu waxtaan mu ne ma tu es intelligent